li ñuy voté tey am baax na askan wi xam na président Macky Sall moo sooke waxtaan li ëpp ci askan wi wuy ji ko te li koy firndeel mooy li ëpp ci assemblée ànd ci parce que ñoo toogal réew mi beneen bi li tax mu doon mu doon taar mooy ni pour lii ci atum ren jógewul ci président ci député yi la jóge ñoo sàkk ñu woote ni li ëpp ci ñoom ànd ci mu nekk loi boo xam ne aussi comme ni ma koy faral di waxee luy avancé la ndax dafa jógee ci dialogue ñi doon dialogue pour man seen encore victoire la mais aussi pour man modestement ñi gëmul leneen dul dialogue war nañ ci jàng modestie parce que la finalité mooy li ngay wut ci politique nga am ko boo xataraayoo boo xeexoo amoo ko lii yoon mooy nga dem dialogue bi ndax ku la ko tere mën nga ci ku la digal leneen lu dialogue ma ngay dialogue bi mu nekk nag une victoire du dialogue ñu déggoo ci nag parce que nag gor ca wax ja déggoo bi mooy ñi demoon dialogue yépp ànd ci dañ buñ ci saafi virgule amoon na ay jamono fii ci wàllu ñu amoon ñun nu ñu taxawee woon ma cité ci le président Oumar Youm defoon ci amendement ñun nañ génn lépp su ko defee ni ñu ko waxee parce que dialogue bi mooy c'est office de loi li ëpp ci réew mi ñoo ko ànd defandoo di leen ñaan itam bu baax a baax a baax taxawaay bi ngeen yokk ko ci réew mi ndax dal bi ñu ngi koy séen naam mais saay-saay du bàyyi mukk fi ngeen teg tànk bi foofu la waxtaan wi lii mu jur am na ñu mu bénéficier oui c'est vrai parce que c'est une loi de porte général am na xëy na ñu mu bénéficier wul damay faral di wax ni bu tombee mu nekk di waxtaan mu régler les problèmes des cas alhamdulilah peut-être que prochaine waxtaan dina nekk une solution mu régler le problème DS parce que nag wax bi wax bi ku mu neex ku mu naq bi réewu Sénégal yi ci jàmm lay teg ci doon lay tegu ku ci bëgg dara ci waxtaan bu koy am am na sañu àgg ba ci ñaan ci njëkk mais bref c'est pour dire kër yi tey li xew tey mooy wane ni lii ñu def fii ak ay at naam danañ ko soppiwaat ndax politique mooy dox lii lañ déggoo gum nañ ci am di remercier le président de la république ndax dañu loxoom banku mu ngi ko ubbi di waxtaan ak ñëpp dama mag sama yaay war Waré Sarr daf may faral di ma ko fàttali nee na président Abdoulaye Wade ma waxoon li ni mel noonu Serigne Touba nee na nee soo soit da ngay xelu ci Serigne Touba da ngay xelu ñëw wala nga xelu ñëw waaye ci réew mi ci dialogue bi xelu ñëw wala nga xelu ñëw parce que c'est la seule issue en démocratie dialogue mooy régler mbir yi c'est vrai il y a des moments d'affrontement mais di dee xeex ci xel du saaga du xaste bu ngeen xeexee ci xel ba gëm ni doxul dafa am des temps yoo xam ne c'est le temps du dialogue dem toog waxtaanee ko ni ñu ko defee woon 92 ni ko président defee ni ko président Ablaye Wade daan defee saa su ne ba wane yoon ñu réew soo ko buggee da ko yéeneel jàmm léeg-léeg nga fàtt si jëmm joxe si jëmm ngir réew ñu mën a dox waaye man rek su ma amul kenn du bokk su ma bokkul kenn du bokk su ma amul jàmm kenn doon jàmm ku ko def jàppaa naa ni nekkoo si yoon wala xamoo politique ndax ñi ci nekk dem dialogue seen parcours politique liñ def ci réew mi war naa tax qu'on les respecte davantage dama jàpp rek ni xëy ñàkk xam la wala xër mais que nit dañ ànd ak lucidité réew mi ku fi waay wax leneen lu dul jàmm fi am ndax na la ku ci nekk leneen lu dul wutum jàmm perte nga lépp ci kaw waxtaan lay am lépp ci kaw dialogue lay am ku ko ci def ñu ànd ceeg yow ku ko ci deful itam yoon dal sa kaw comme ni ñu koy def saa su ne remercier aussi ñu dialogue parce que il faut du courage pour bi ñu demee aussi assumé nañ wala boog ñi leen déggal ci seen i njaboot assumé parce que ñi demoon dialogue yëpp li ci ëpp assemblée bi am na ñetti groupe parlementaire te ñetti groupe parlementaire yëpp ñëpp ku ne am nañu ànd ci dialogue bi pour ne pas dire tout le monde la majorité l'emporte encore vive le dialogue vive ces résultats là bu ëllëgee ñu waxtaanee leneen aussi pour l'intérêt du Sénégal